ca jërë ngeen jëf salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna ah, ñu ngi leen di nuyu rek saa su ne ni leen daan nuyoo fii ci Sénégal Buzz 221 ànd ak suñu naataango seen buzz ah, nekk fii ci bi yaakaar naa ni daral fi koo xamante ni ay xam nañ ko àdduna xam ko muy suñu mamaa Fatou Ndiaye dañu koy bàyyi rek mu nuyoog mbokk internet yi maman ñu ngi leen nuyu bu baax. asalaamaaleykum xëy nga ñu bari yaakaar naa ñu ñëw fii nga xamante ni moo di Gàmbi ku ne Gàmbi nag mu ñàkk bañ wax Maman Fatou Ndiaye Maman Fatou Ndiaye ci biir Gàmbi. ah Maman Fatou Ndiaye mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. bi. doon loo xamante ne mën nañ ne nag jiitu na sa diggante ak Wally doonoon diggante yow ak Papa Thione lan nga ñu mën a expliquer sa diggante ak Papa Thione maman. Um, Papa Thione macha allah ku baax la papa coon papa cooni Gambia la papa coon papa cooni àdduna bi yëpp la nit papa coon ku baax la mun na li muy def ku yiw la ku jullite la ku yëwén la ku rafet xool la tamit nit papa coon àdduna bi yëpp xam nañu nit ku baax la nit ku sincère nag ku ñeme dëgga waaw nit koo xam ne amul ju jaaj moom waxam lépp a direct lépp lum ne loolu la loolu la su ne non non su ne waaw waaw kon papa coon papa coon yi ñëpp la. papa coon ñëpp la sa ànd yaak papa coon kañ la door. papa coon li ma si mën a wax mooy papa coon mun naa ne moom suma taay mi ñoom yaay yi la. moom génération boobu la. Mm-hmm. papa Thione génération am. Mm-hmm. yaay la. Mm-hmm. waaw. seen xamante yéen ñaar fan la moo indi seen seen seen booloo yéen ñaar. Um, papa Thione suñ xamante definitely waan ñëwaan bi dañ daan dem soiréem di dem seetaani waaye tout le temps suñ waxee rek ma ne leen ah ma de papa Thione wóyam yi yëpp. jàngat la si man mm-hmm. ni Papa day wax mm-hmm. te lu muy wëy mm-hmm. day digle te lu muy wëy bu waxee ñëpp xam lan lay wax kon Papa dafa mel ni ticca bu am ay élève lu mu wax rek élèves yi war koo déglu nit boo déggee ay woyam rek foog nga am ci loo ci jàng waaw boo foog nga am loo ci jàng moo wax kon ne way bu wayu bu yeetewul diglewul ay naxaate kese la tey jamono dox ba diggante sa diggante ak Wally Seck mel noo xamante nit mën na ni sa yaay ak ñoom Papa Thione la woon lan moo indi ko jaxasoo boobu. Wally Seck moom alhamdulilah parce que Wally dafa am sama benn doom Aïcha la tudda Aïcha Mbow soo waxee rek si Wally génne si tele bi mu ne ma man saa yaay mene naa mu ne man naa nopp Wally Seck fu ma mun di nekk dina ma oo ma Wally mu ci tele bi. kon mun naa wax ne suma doom bi Aïcha moo waral lii yëpp suma diggante Waly ba tey ma nekk yaayam fii biir Gàmbi ni Waly Aïcha bi mu buggee Waly eh, bi mu ne moom dafa nopp Waly Aïcha bi muy nopp Waly defe naa am na ay ñeenti at juróomi at yooyu rek la am ba tey Aïcha am naa ay ñaata at xam nga mu bugg a Waly ba bugg a dee ma yóbbu ko kër Kiné Kiné yóbbu ñu kër waali ñu gisante waali waali woon ko ne ah xama Aïcha woon waali ne man yow laa nopp waaye bi mu gisee soxna soxna ne ko yow da nopp sama jëkkër ji xaaral ma ñëw téye sa proof bi gis nga mu nekk affaire boo xam ne affaire bu doy waa ñu reetaan kafre depuis loolu nag salma waali téye waali téye ma téye boo xam ne sax mënumaa comprendre naka la jaaga mm-hmm. bugga ma ba bugga dee man ma raw ko mm-hmm. def ma comme ku mbokkal ndey ak baay Mama ni tey lu nekk rekk dafa am fu muy commencé su ma diggantee Waali ak Papa Thione ak Mama Diaga Kiné yaay Waali ak doomam yi ak waa kër gi yépp Aïssa fa la commencé suma Aïssa mu ndaw mm-hmm. kon noonu laa xamante ak ñoom Waali noonu nga xamante ak ñoom Wally ba am taxawaay boo xamante ne fu mu nekk nii kenn du wax maman Fatou Ndiaye te tu ci teg famille Papa Thion loolu doon loo xamante ne complicité bu am solo la ba jàpp nañ ne rek Wally ak lu mu xat xat xat xat xat bu ñëwee biir Gambie mën nañ ne fii lay añsee. loolu loolu dëgg la ak si àdduna bi tey ku nekk am nga sa bët di xool te Olof Ndiaye dafa ne jàmbur dina dem bi gënal la sa mbokk. parce que jàmbur bi am na nu mu la téyee di nga am mbokk te du la ko téyee jàmbur bi am na nu muy daweeg ci yow di ci sonn yow si sa bopp dina la wóor ne kii wóor na ma ne diw ak diw samay mbokk lañ waaye jàmbur bi tey ni mu mel si man kii war naa ko mën a téye ba raw sumay mbokk kon Wally suma diggante ak moom lépp dégg moo ko lal su ko naxaate laloon kon tey fi ma teg duma fa teg àdduna bi yaatu na gàm bi yaatu na ñi ma fi uppale alil yaatu nañ ñi ma fi dàqa yaatu nañ ñi fi gën a baax yaatu nañ ñi fi gën a yéwén yaatu nañ waaye dama ne suma diggante ak waali du benn doomu aadama aysa mi nga xam ne yàlla moo ko sàkka muy suma doom kon tey dama ne lépp suñ boroom la moo tax man dem naa ba Màkka dem aji ji ni maa gis ni aji naa dem naa aji ji ma tàllay samay loxo après ma julee ba pare ma ñaan suñ borom suma diggante ak waali bu fekkee ne lu gën la yenn diggante bi continuer bu gënul nag na dem ma dem waaye depuis ma def loolu waali Seck toujours bu ñëwee bi dina def lu bees lu war a tax ma gën koo téye dina def lu bees lu tax ma war ma war ko ah, ma ma gën koo téye kon lépp si moom la ak ci tey am na nu ma doon mel duma fonka duma téye duma faale même su ma ko bëggaloon suma bopp parce mbaa su doom bëgga ko mbaa ñu xamante am na yu bari yu muy gis ci man duma tiye nit waaye ku ne xam na ko ku ne xam na ban façon ngi nit la nit koo xam ne la nit ku am dignité ci boppam la ku am classe ku am maanaa doon nit koo xam ne ku am fulla ku am fayda man dama ne montar yu baax yi yëpp ñooy bokk iir montar yu bon yëpp bokk iir kum téye ba taf ci booram benn la yaay sama yaay kon dama xam ne lu mu gis ci man lépp lu ma doon def ci moom benn oo mu gis jikko yu rafet ci man tout le temps dama ko gën a yokk te gis naa ne moom heure bu mu ma gisee ma gën di ko neex su ma yëf gën di ko neex mu gën maa téye gën maa fonka gën maa jàppale xam nga man daal heure bu ma gisee waali rek mu mel ni tey laa ko gën a bugga moom it heure bu ma gisee day kontaan si man nit lu ko waral direct rek moo am solo nit ki da ngay direct te man gaam bi ba mu daj àdduna bi ba mu daj mun naa yëkkati suma loxo ne man semaine laa benn yoon lay tooy faramaareen lañ ma xamee mhm. waali lañ ma xamee mhm. dama ci téye mhm. dem ci ba jeex nanguma see gëstu ginnaaw nag de man damay xool suma kanam rek di dem muy lu ma neex ma dégg ko muy lu ma naxari ma dégg ko xooluma dara nit diggante boo ko tiyee mu doon diggante bu neex bu war a am mucc bu war a baax lépp loo cay def rek bu déggoo rek yàlla jàppale leen daf ma téye def ma yaay daf ci déggu xëjalu ci kenn boolewu ci kenn man ma tiye ko def ko def ko doom dama ci déggu kon dama ne yàlla moo ñu boole waaye nag dinaa ci gërëm ay waajuram muy papa coon ak mama ni bu leen neexoon tey Wally seen doom la dina leen ne Ketta Fa bu fa lekk mu fa naan bu mm-hmm. fa def dara yéen ma gën a xam artiste yi mm-hmm. du kër fépp la ñuy lekk mm-hmm. du fépp la lekk kon bu ma kii bàyyee doomam Papa Thione bàyyee ma doomam óolu nañ ma gis nañ suma diggante ak doomam soo waxee dañ dee wax ne man ñun ñoo jur waali de waaye yaa ñu ko gën a bugga ni Papa am na benn bés mu ne ma Fane Ndiaye mu ne waaw mu ne ma ku ñëwoon doon ut pour def ko lu bon mbaa pour rek ko oo dara mm-hmm. yow de xam naa bu la njëkkee gis yow lay njëkk a yóbbu mm-hmm. ma ne ko loolu am na mm-hmm. nit xam nañ fi ma fi ma tollu seen doom ji waaye yëpp moo ma ko jiiñ mënoon naa ko bëgg a tey mu am na moo defee man bu yàggee ma gis suma boppam ma nit bàyyi ko waaye defu ko defu ko waaw loolu lépp doon ay kàddu yu am solo waaye ba tey rek dañuy des ci waxtaan bi tey boo toogee fii Gàmbi dégg Wally Seck di def ay social di def ay actes yu am solo di dimbali nit ñi di leen jàppale ci li nga xamante ne tey yàlla dénk na ko ko loolu tamit lan nga ciy gis. di sant yàlla rek di sant yàlla rek moo tax dama ne Wally niñ ko ñaanal aleel dafa sas ci xool Wally gis ngeen ni muy liggéeyee alelam bi ni méttiyee wala bu yéegee si seen ba wàcca da nga koy yërëm boo ko tegalee lekk sa du ko mën a lekk ngir coono gi moo àndal ak coono bu moo am danga koy gis day ñaxabe siit ñaxabe tooy xepp kon xaalis bu mu am day barke nit coono bi moo daj balaa événement bi di jot ba muy def événement bi mu war a def ki ko woo même yàlla def li war a def yëpp xaalis boobu yëpp mu dajale ko ni mu baree muy jël lu mel noonu di ko may nit mbaa di ko jàppalee doomu aadama kooku kenn amul fayal ah, kenn amul fayam xanaa ñu di ko ñaanal te xam ne ma dama ne suma doom ji Wally Seck mooy borom xoli urus bi borom xoli jamaa bi jëlut aleel def ko ci fitam bi aleel yóbbuwu ko jëlut aleel aleel tiitalu ko ki nga xam ne léegi léegi da ngay toog wax ak moom léegi léegi léegi léegi si biir wax bi ngay toog waxtaan ak moom mu am lu mu sentir ekkati lu rëy may la kon kooku xol bi mu am yàlla moo ko ko jox nit ki dañ ne olof ñaa dafa ne ku nampateen sa ndey suñ ne kuy sa yaay ngeen ne jaaga suñ ne kuy jaaga jaaga mooy ki nga xam ne nit ku jullite ku baax hôpital mm-hmm. yi mm-hmm. di togg di yóbbu si marché yi mm-hmm. di togg di yóbbu si xam nga jàkka yi si jumaa yi fu ne la jaaga di teg ay mbana man mii yaayuwaal waali am na benn bu ma fa fekkee ñu jaaga di tooga pour yóbbu si hôpital yi ñun ñi ñoo dem mu ne ba mu ngi may tooñ naa ma te te di nga dem ànd ak ñoom Fatou soo dem si hôpital yi ma ne ko dinaa dem kañ ñoo doon séddale ay lekk yi xam nga nit ki loo tegul sa but rek doo ko mën a wax man mii bokk naa si ñi téye woon chinois yi di serwi mhm. gars yi di indi seen eh, bool yi ñu di leen tibal kon Wally tey bu juddoo di def lu baax mhm. daf ko gis ci ay ay ay eh, paaraanam mhm. papa coon day xëy suba toog ci ci état bi ku ñëw mu génne si poosam jox la nga dem ku ñëw mu génne si poosam nii lay nekkee bëggu di jot kon ñaari waajur boo ko amee ñu baax yow nga yow soo juddoo boo baaxut jaaxal say mbokk kon waali fi mu jaar rek la war a jaar fa kilifa mi teg tànkaam fa la teg tànkaam fa kilifa mi teg foofu la teg tànkaam ren yaakaar naa ni sa xaru tabaski moom Sénégal lu jógee ba Gambie <laughs> moom ñu moom dañuy topp dañuy topp actualité loolu moom géeg nañ ñi Sénégal la jógee ba bi ñëw fii yéen moom xam naa ne xam ngeen lu bari ah. <laughs> waa loolu moom am na hmm. loolu yëpp bokk na si li tax. Mhm. comme li ma lay expliquer rek lana a tax mhm. ma téye xale bi. loolu tax nga téye xale bi. lan a tax ma téye xale bi. Mhm. parce tey waale mënoon naa wax ne bi am na xar. mënoon naa wax ne sama yaay kat mun naa jënd xar. waaye toujours day def si man taraanga yoo xam ne. daf ma de jaaxal sax. man dama ko ne même defal loo ma taraanga sax. safoo faale ak yëg bi ma jox rek doy na ma. Wally soo xoolee ñaata doomu aadama ñoo ko bugg a gis oo ñu bëgg a koo téye nii rek gis nga bu ñëwee suma néeg bii mm-hmm. fu nekk laa dugga amul frontière fii fu ne laa dugga fu ne fu ne fu ne laa dugga mm-hmm. kon kooku wan na ma ne dafa bokk sama njaboot mm-hmm. moo tax su waxee ma ne ko yaay taaw aana moom moo moo topp si yow toujours loolu laa ko de wax tem nangu ko te xam ko te gëm ko te gëm ko waaw. loolu lépp du am di loon ay kàddu yu am solo waaye ba tey rek bu ñu dem bay fi nga toll ak Wally tey boo demee ba ci gis ay coow wala ay affaire yoo xamante ne tey day dellu si waat sa kaw tamit loolu tamit nu mu lay parce que gis nañ ni am na ay coow yoo xamante tamit mi ngi am sa diggante ànd bi nga ànd ak Wally. loolu léegi sant yàlla parce si man dama nit ki boo xëyee oo nga toog diir yu gudda gisoo jafe-jafe sa si sa mbir nga seetaat sa bopp. am na jafe-jafe yoo xam ne gaalaaj la ci doomu aadama kon wax ji coow ji du mën a ñàkk waali yàlla def na ko xale waaye kilifa la te nag waali ni mel rekk la mbiram mel nit ki boo baaxee bari biwri soo tabee bari biwri noo mën di mel coow li toppa la kon waali coow li ko toppa ñun dañ koy ñaanal rekk yàlla lafal ko cat waaye coow li du ñàkk mukk ñun suñ mbir faramaareen hmm. bëgguñ mu sedd ñun coow moo ñuy jox boos coow bi mooy mooy tax ñu dunda coow bi mooy tax ñu kontaan nit ki bu kenn yëkkatiwul sa mbir ah nga seetaat sa bopp nga waaw kon ñun bu nit ñi coowee rek ñu kontaan because li ñuy coow ñoo xam li ñuy coow du dëgg kon ñun li ko ñor rek mooy mu ci kanam rekk di liggéey liggéeyam di def lu baax xaarut kenn seetut kenn waxu ci kenn tontuwut ci kenn moom daal mu ngi dox doxam daal waaw mu ngi dox doxam te gastuwul mm-hmm. te ñun loolu lañ bëgg si moom mm-hmm. moo tax ñun mi nga xam ne ñun ay yaayami lañ ay fansam ay rakaami ay magam mbokkaami am di jaamaami moom ni mel mboolem faramaareen noonu nga mel man dama ne faramaareen yëpp benn indi moo leen suusal nit lu tax benn indi moo leen suusal nit ki boo koy xool dafa war a doon exemple muy def lu baax doon nit koo xam ne muy def loo xam ne yow ñi topp sa ginnaaw dañ war a roy si yow démba papam la woon ñu génération waali la kon tey Wally fi mu teg tànkaam képpa ku ko toppa fi teg tànkaam su baaxutoon doo ko topp fa mu teg tànkaam moo baax ba tax ñun mii ñu topp si ginnaawam xale la waaye macha allah xale bu am xel ku xam li muy def ku xam fi muy teg tànkaam kon moom exemple la si ñun suñu rôle modèle la moo tax ñu bugg a ko moo tax ñu topp ko boolewul dara ak wax kon moo tax ñun lu coow lii rëy rëy ñun ñu ngi xalaat nu ñuy liggéeyee fan si di bëgg fan si di kontaan ñu ñaan yàlla mu yóbbu ñu sa kanam coow dalay tojal ñun taluñ coow te bëgguñ coow ñun nañ dem nii rek si kanam mhm. liggéey mhm. nit ñi kontaan nit ñi gën koo bëgga benn lal lam soo ko solee nga yëngat ba soona dara yëngatuwut mhm. nga dooli beneen mu yëngatu ah loolu musiba la kon ñu neñ ñu bàyyi rek ñuy coow ñu ñuy def ba mu baax. lan tontu ñenn ci ñi nga xamante ne dañuy wax ni tey xëy na boole bi leen yàlla boole woon yow ak sa borom kër am nu yàlla dogalee ñu bari jàpp ne dafa jóge sa diggante ak Wally. Mm, yaa laaj loo xam ne nag doomu aadama bu ne yàlla moo daganal sëy moo daganal tas kon man. su ma sëy du ma ne dafa jaar ci waali ndogali suñ borom la yàlla daggaloon mu am kon bu tasee ndogali suñ boroom la sëy dagan na tas dagan na kon lépp suñ borom la nan ngay tontu ñi nga xamante ne nag dañuy naan li tax suñu borom euh, dakkal loolu noonu ànd bi nga àndal ko waali te sa borom kër dàkku ci loolu la ñu bëri di wax loolu tamit daan nga ci tontu loolu mooy li ma la wax rek man ku mel ni man bariwuma xarit man bariwuma xarit am na time bari woon xarit waaye man bariwuma xarit fu mu nekk nii nit ñi nag dañuy wax seen wax te kuy wax sa wax bàyyi ko mu wax man bu may dem man kenn su ma utu mm-hmm. su ma ebee keneen mm-hmm. sama doom lay doon mm-hmm. mbaa mu nekk koo xam ne sama famille la nit ki nag am na yoo xam ne yaa ko moomal sa bopp am na yoo xam ne nag comme olof Ndiaye dafa ne ku dee sa marché ba yaa tàggee sa bopp suma néeg bii man ak suma njaboot ñoo fi ne kon defe naa ne lu fi ne keleng suñ biir la yem te xam nga ne ñoom duñ génn di nettali mbaa di wax lu leen neex du dégg kon coow li toppawaali foog ñu toppañu mhm. miis nañ ko ñu looloo ñuy dundal bàyyi leen ñu wax waaye dara wóoru leen suma biir kër lu fi xew mhm. dara wóoru leen sëy daal dagganoon na mhm. amoon na tas daggan na tas na loolu daal moo ci xew lu neex nag waaye wax waaw waaye li fi xew moom li ma la wax dara weesuwu ko buñ ko dégloo ñoom buñ ko gëmee moo am buñ ko gëmul moo am lu leen neex nag ñu wax waaw ñun Faramareen dawuñ coow. dawu leen coow waaye rek damay tëjee. <laughs> dawuñ coow buñ waxee rek ñu déglu leen. Mm-hmm. waaye ñun du tere sa lañ nekk di ko def rek ñu ngi koy def. Mm-hmm. du dëgga mm-hmm. Olof Njaay tamit dafa waxaat ne suñ la séddee si gaali xaj. bul nag ñu fekk la nga di ci lekk mukk kon gaali xaj buñ mun di sédda doomu aadama buñ fekkee sa loxo ca biiram ñu dëggal say wax. waaye lépp nit ñi coow di ko wax mm-hmm. xam nga man duñ ñëw ñu wax ma ko mm-hmm. bàyyi leen ñu wax bàyyi leen ñu wax man li may waxeek ñoom mm-hmm. bu suma doom ji ne salaamaaleykum biir Gàmbi balaa ñëw sax ne mu ngiy waaj man sa lay toog fii di waaj bu ñëwee ma ànd ak moom ñu dox suñ dox mu def lu muy def ñu def ko ba mu neex def ko ci fula ak fayda mu ñibbi man it ma dellu si sama liggéey waaw ñun loolu lañ tal. nan ngeen di waajee événement suba bi. def ba mu baax rek. def ba mu baax rek. waaw événement suba bi daal. def ba mu baax rek lañ koy waaje ni boo xoolee bi ñuy waaj lii yàgg na. yàgg nañ koo waaj waaye yàlla dimbale ñu loo waaj rek bu yegg see day yomb. kon ñu ngi ko ñaanal moom Wally yàlla indi ko mu ak see jaama bu yegg see jaama ah moom xam na ne am na gannaaw te am na mbooloo te lépp moom la lépp moom la kon événement bi du yomb du xaaja yomb ni mu ko waxee dina def ba daf def lu raw loolu nit dañ ko namoon mu namañu torop sax kon du yomb de ku ebu nag nga takk say dàll bu dëgër te xam na du yomb nit xam naa ne bu ñëwee duñu may dara te ñu ni tamit dinañ dem ba jeex waaw concurrence bi am ci diggante musique am waali jàppal waali jàppal kii jàppal kii loolu noo ko gisee loo miin si am waali jàppal kii jàppal kii mhm. moo kanay jàppante bi am ci biir musique bi am waali jàppal Sidy Diop coow loolu tamit ci biir musique doo ko gisee man ci loolu duma ci wax dafa nekkul lu ñu war a wax rek ñun hmm? ñun dunduñ dunduñ yooyu ñun liñ dunda mooy liggéey nañ kaset bu neex génnee nañ ko ñu ko ñu ñu di ko déglu di ko bëggee di happy ñun lu coow lii rëy rëy rëy rek comme la ma la waxoon ñun ñu ngi liggéey rek di dem dafa am yenn yoo xam ne sax yow boo jëlee sa yoon bu baax yi jàmma yoon boo xam ne moo gën si yow moo baax si yow doo gannaaw bi leneen di la ko yàqal kon ñun xooluñ leneen dégluwuñ leneen faalewuñ leneen ñun daal suñ liggéey rek a ñu ñor heure buñ xëyee ñu ngay xool ñu ñoo gën a demee ci kanam gis nga wax dalay tàddal wax dalay yàqal wax dalay um ñun na bëgguñ lu ñu um lu coow li rëy rëy rëy taluñ coow taluñ tontu taluñ defante taluñ fitna suñ liggéeyee ñu ñor ñun daal si lu ñuy dund ak si luñ nekk moom lañ tal buñ joxee yàlla daal waxtoom yi nga xam ne moom lañu ñu santa ku nekk nag am nga ki ngay bëggee suñ faramaareen bi lañ am muy Wally di sama doom doomi Papa doomi jaaga di doomi àdduna bi yépp kon ñun taruñ dara man dama ne Faramareen yi mm-hmm. ak ñoo rafet xol mm-hmm. ak a ñoo baax mm-hmm. ak a ñoo tabe ak ñoo civilisé ak ñoo mën a sanse ah looy tal ñun jaama rek la wër waaw ku ñëw ak jaama ñu nekk ak yow si jaama ku ñëw ak leneen nag ñu bala fa nga wéet ak moom waaw dernier kàddu lan lay doon maman ñu tàggatoo ah xanaa kontaan rek di leen gërëm seen ñëw bi ngeen ñëw topp si Wally fii Gambie mm-hmm. kontaan nañ ci yéen trop mm-hmm. macha allah boo seetee télévision yi ko topp si bari na mm-hmm. te am na nu mu doon mel Sénégal du leen jaral ngeen ay déplacement di ñëw ba fii di ko topp si kon jërëjëf lañ leen a wax Sénégal dégg naa ñu bari jógee nañ fa ñëw yeneen dëkk yëpp. ñu bari jógee nañ fa ñëw. gaam bi moom waxee noppi ñëpp a pare man dama ragal ndax est-ce que nit ñi nañ xëj si stade bi. parce que wàlli nama nañ ko nama goo xam ne. kenn mënut a xam naka la. kon di ñaan di ko ñaanal yàlla rek yàlla isi koo jàmm. suñu yee mu dal ak jàmm. lépp lu mu fi paree def yàlla dimbale ko jàppale ko mu def ko ak jàmm yàlla may ko si ndam. mu delluwaat si jàmm ba yéen ñëpp ngeen dellu si jàmma boo leen demee bàyyi ñu fi si jàmm ñun tamit ñu ñaan yàlla ñu gisee waat ak jàmm loolu la ñoo ñaan loolu la ñuy ñaan ah, di kontaan bu baax a baax a baax ci dalal bi nga xamante ne tamit dalaloon nañ ko am ah, ni mu koy waxee rek mu doon suñu yaay ju baax yaay joo xamante ne ñëpp la njabootee ñu dañuy kontaan ci moom bu baax ndax bi mu fi ñëwee ak léegi teraanga yi bëri na añ bi neex na macha allah kontaan nañ daal mama ah, di kontaan ci moom baax a baax a baax mbokk yi jox dig daje rek ci beneen numéro incha allah jërë ngeen